aousubillah bisimillah inna waliyallah la hawla wala quwwata illa billah wasalatu wasalaamu ala rasulillah salallahu alayhi wa alihi wa sahbi wa sallama taslim mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu <clears throat> ñu leen nuyu bu baax di leen ziyaar di leen baal xaq di leen baal xaq di ngeen subhanahu wa taala yéen yàlla bala bal te la jéggal di ñaanal way tawat yi yal na yàlla saafara leen waaye dogal yi yàlla yërëm te jéggal leen ñu fi des na yàlla yàlla gudd suñu fan dëgg na satam saxi barke suñu bu baax Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla fi ak wér mboolem mboolem kilifa diine yëpp yal na yàlla yokk nu jàmm ak wér ak kattan def lañ sutura taraanga di leen ndokkeel bu baax a baax a baax ci bàyyi xel gi ak topp gi ni ñuy baaxoo ànd ak seen jataayu koor tey di juróom benneelu jataay bi di juróom benneelu fan yàlla na yàlla may ñu eggale te mottali mu mel ni beneen dénkaani ngi boo xam ni sëriñ bi wax na ci am solo loo xam ni wax na ni képp koo xam ni bàyyi nga ko xel dana la jégaleel yàlla bi nga xam ni mooy wuyu ko ko woo tey aji jigéen ndax yàlla moo ni inni garibun mujiba da'wati da'i iza da'ani ginnaaw bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslim nim ko baaxoo di commencé ci mboolem bindam moom ku tedd ku baax ki mu ne tajribun wa taqribun ilal mujibil garib sëriñ bi ni waajix jinaan rabbikal karim zil juudi wa tafdilil wa takrim yow mi nga xam ne nga bëgg a am àjjana joo xam ni fii lay commencé di sa àjjana yi borom tabaraka wa taala ju tedd ji boroomu tabe tey boroomi ngëneel tey boroomu tedd nga sëriñ bi neen loolu boo ko bëggee nii rek ngay def mooy bil imtisaalil mujibi taskiini maatina bi bitam kii tamkiini fexeel tënku ci jëfe ndigal bàyyi tere soo ko defee rek di nga am cir boo xam ni moo lay jàppandal nga am àjjana sa borom ëllëg waaye pay ga nag fii lay commencé mooy àjjana ju commencé ci àddina jëm ak yow ba sàq ba ilaa yowmal xiyaama mu ni loolu nag daa am noo koy def waaye day am loo ci jiital loo ci jiital mu ni wa xaddimi tawbata min maasi wala tuhibba mufdiyan li aasi danga koy jiital tuub gu set gu la tuub gu set gu sell ci bépp mooy boo mas a def wala bépp mooy yàlla te lépp loo xam ne day pousser nit ki ngi rek mooy yàlla nga bañ koo bëgg bañ koo sopp bañ koo jige nee na tuub nag dafa am yu koy def ay barab <clears throat> wala ay cër mooy yan nee na mawaadixul mataabi xalbun wa lisaan wa badanum tatxiirun si yuxtal isaan nee na yi nga xam ne mooy tuub mooy xol ak làmmañ ak yaram bi mooy jëmm jëmm ji mooy ci mooy yaram bi nee na yii mooy yi nga xam ni mooy tuub moom la ñuy laabal seen ñu set fecc wecc ci ay bàkkaar ak njumte mu ni bi dee xol bi nu muy tuube mu ni fal xalba taxir bi nadaamati bila tagarrurin walil ali kun muqbila sa xol danga koy tuubal yàlla jéggalu ci yàlla waaye ànd ak réccu réccu woo xam ni dalay danga koy mettitlu muy regret ci lenn loo xam ni du am ak waru bu ko defee nga dëgmal yàlla tabaraka wa taala ci li des nga jéem caa def lu baax waaye li jot wees na wees na boo ko tuubee nga nekk koo xam ne koy metti lu di ko réccu tax xam ngeen ne saatitub mooy annada bokk na ci annadaamatu ala ma faata wa niyatu alla yaxuda ci ma baqi min maanaam bokk na ci mooy réccu ak am yéene intention bu ma sëkk bu set bu sell boo xam ne danga naan li des sama dund bàkkaar sàngam wala lii dudu ma ko def soo ko defee rek na ma waxe woon ci beneen teer ni kon fas bil kamal di nga texe ci gu ma sëkk ndax yàlla loolu la bëgg kon xol bi loolu mooy nga moom lañ koy tuubal noonu koy laabale bi ci des mooy làmmañ mu ne wa taxiri lisaana bi istiqfaari li xawfi rabbi malikin qafaari nee na làmmañ bi tuubal gi mooy nga euh, ci saxoo maanaam istiqfaar li ci déggalu yàlla fortoo lu ci wax astaxfirullah loolu moo koy laabal loolu moo koy tuubal ngir nag teg ko ci ragal borom bi nga xam mooy boroom te mooy buur te mooy jégg kon kon bokk na mbokk yi wax na la xol ni muy tuube mooy booy tuub da ngay am yéene ju ma sëkk ci li nga xam ne moom nga defoon duutoo ko defaat mukk waaw mooy réccu ca la jot a wees waaye nag am yéene ju ma sëkk ci li ma def sama dund moom duutuma ko def waaye fas yéene ma bàyyi dara ci loo xam ni ndigal la mooy kun mukk bi la nga jubla tabaaraka wa taala nga defee làmmañ wi tamit lam daan wax naka dul noonu nga di ko remplacer ay asgar ay astaghfirullah ay subhanallah yooyu mooy li nga xam ni moom lañu di woon tey bind mi jeexut waaye dañoo egsi fi ñu war a jataay bi leen jox dig daje ba suba ak jàmm incha allah xam naa leen fàttali rek ni mën ngeen a ak ñun nag waxtaan di ko topp ak ñun ci sun seen youtube bii di Ndayane Vision ND Vision par youtube wala par facebook incha allah leen jox dig daje ba suba ak jàmm asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu